الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله من كل كريم أكرم من هم خاد له تكرم أسلم له كل كهال إيماني ولا سيم لسان الرحمن وجيه بسكر بلا كفراني تفاي سابه مهنيراني asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, waa Black ci Côte d'Ivoire Abidjan a ak Djamé marché Black ñoo doon def 18 safar commencé nañ liggéey bi di ko jëmee ci 18 safar ju mag ji nga xam ne mooy bis bi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa woote waa Black ñoo ñoo amoon euh, yéene jàpp ca bis booba te comme nañ ko bëggee mënewuñu ko ñu xam ne taalibe yi nekk balaag wax dëgg kës yàlla ak ñu nekk Côte d'Ivoire gépp jàmbaar lan ñu ne ah ñu commencé ko daaw ne at mu jotati daal danoo bëgg a woo mbokki taalibe yi nekk balaag ak nekk ci dëkk bi ñu dajaloo waxtaan a jàng ci marché bi alxuraan ak xasida ngir njukkale ko sunu borom waaye njukkale ko suñ Tuubaa comme fii ñu nekk sun borom wax dëgg fas ma sha allah talibey seigne touba yi jàmbaar lan lol lol mom wa deuk bepp xam nañ ko wa marché balak donte talibey fi nek yep jambar lan ñu nak na leen fi daje buñ fi dajee waxtaan def ñaan ci Côte d'Ivoire gep rawat na marché balak ak li wër Abidjan gep Côte d'Ivoire gep lepp luñ fi amé dañ koy yobbu ci kër seigne touba gu magga ngir seigne touba bi sam bop mo wote nga xamne moy 18 safara li nak ñun dañ ko def ab waaj rek dub daayira du du du dara at mooy rek lu nu dajale nu mu mën a toll rek ñu jël ko ànd ceeg suñu maje ak ñoom ak moorloo ñoom ñi ak ñeen bokki taal bi yéen ci àndal ay alaaji Dramé ay Daouda Ndiaye ñu jàpp ci liggéey bi ñoom ñëpp ak ñi fi nekk kenn mënta lim ku lim joom Cheikh Faye ñoom ñëpp euh, lépp lu fi am tamit nañ ko jël yóbbu ko ca kër Sëriñ ñu dugal ko ci màggal gi barkeeloo ko di ñaan suñu borom euh, gën ñoo taxawal gën ñoo dëgëral ba nga xam ne liggéey boobu daal Euh, nan ko mën a defee nan ko bëggee amee ko amee ko amee ko nan ko bëggee lépp nag jëm ci màggal gi rek di sant mbokki taaliba yi mboolem ñu fi teew ñëpp ak ñin ko andal nga xam dañ fay jóge dem Sénégal bàyyi ñu fi ak ñun ñu fi des ñëpp ñoo ngi leen sant di leen gërëm di ci ànd ak suñu majeeg ñoom di ko jox di ko jox kàddu gi rek mu gën a leeral mu gën koo leeral signal yi comme ni nga ko waxee rek euh, comme ni nga ko waxee rek ñi waajal 18 safar gi pour mën a màggal màggalu Touba gi te wax dëgg yàlla ban ko dalee def ba léegi wax dëgg yàlla gaa ñu jàmbaar lan lool ndax ñu bëree bari fii ci marché bi ay waa réew mi leen lu ñuy sénégalais waaye wax dëgg yàlla reconnaître nañ sëñ bi bu baax a baax ci siinu sas ñu ngi koy bay bu baax ci biir marché bi moo tax ñi ñiy def 18 safar fii pour ñu gën koo xam bu baax a baax di ci woo mbokki taalibe yëpp nag di wax na mbir moo wax dëgg yàlla rafet na lool am na solo ndax ban ko commencé ba léegi wax dëgg yàlla Euh, ñu ngi ciy ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax baax ñu ngi ciy gis développement bu baax a baax ndax waa réew mi euh, kàllaam ak nasaraan ak kàllaam ak jula yëpp dañ ko ciy wax pour ñu comprendre na lii la ñuy def quoi. ñu ngi soññi nag ñëpp ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax ci liggéey bi ndax parce que liggéey bi boo gisee ñi koy def nii danoo bëgg lu nga xaay ci ne lu ñu préparé pour def ko màggal Touba gi rek ca daayira bee lépp lu ñu fi dajale it ca daayira ba la jëm bu dee 2 millions ca daayira ba la jëm bu dee doon daayira bee tax ñuy waaye defu ñu ngir ab daayira danoo def ngir préparer màggal gi pour màggal màggal gi buñ ci mënee jënd ay nag jënd ci ay nag buñ ci mënee jënd jënd ko ci waaw waaye nag nit ñi jàmbaar lan too trop mbokki taal bi yëpp jàmbaar lan wax dëgg yàlla ñi ngi sant yàlla bu baax di leen gërëm bu baax baax ci taxawaay bi ngeen taxawaay ci 18 safar ak jàpp gi ngeen ci jàpp wax dëgg yàlla gars yi yëpp jàpp nañ ci ñoom Aliou Sarr mi Daouda Ndiaye Mor Lo gaa yi yëpp mënumaa lim ñëpp ñoom Cheikh Faye ñoom ñëpp gaa yi yëpp jàmbaar lan wax dëgg yàlla suba ba ngi ci am na gaa yoo xaay si ne dem nañ Sénégal yi lan trop wax dëgg yàlla ñu leen ziyaare bu baax a baax di leen wax ne nii la rek liggéey suñ Tuubaa moom mbooloo rek mbooloo mooy doole waaw lu jàpp rek dañ koy daan bi soob yàlla jërëjëf marami wa inni sa irun wa faqir umuri wal qalbu tayyibun mariban